asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum ndongal Touba ndongal Touba maa ngi lay filmer ngay naan kafe kon mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokki murit yi fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu ngi fii ci pàkk bu tedd bi ci bis bu màgg bi muy bis bi nga xamante ni moom la sëriñ bi woote ci njàngum alxuraan xasida jiitale ko maanaam euh, ñu ngi wax euh, sikarla sëñ bi tuddal ñu ko maanaam àllal eh, ajjumay Touba muy lo xamanteni lu bes tek la ajjumay Touba nak kuko deg sa xel wara dem ci sikkarulaa sa xam sa xel wara dem ci eh, jangatan xasida motax fi ci bërëb bi nga xamanteni moy mooy bërëbu soxna Aysatu Gaawan eh, nekk fekk magam ju tedd ju bax ju gore ji soxna fatou jambaké bintou Cheikh khadim waaye nek fek sen rak ju tedd ji soxna Asu ben, waaye nek fee ak soxna amita gannar mom sen Touba ñu fiy dundal ndugali sëriñ bi saa su ne gis ngeen ajuma bii weesu mbokki taalib yëpp nekk fi ñuy jàngaroon xasida waaye di bernde sëñ baara sëñ baara bernde yi doy na li ngeen fi indi ngir ngir barkeb soxna si ak ak ak ak ànd ak sëriñ bi ci ndigal li soxna si gis na ko waaw sëñ la kon looy wax ci benn yi benn yi moom nga may waxal santaat Seexul Xadim <laughs> alhamdulilah baax a baax ci benn yi di sant mbokk taalibe yi jàpp yëpp sëriñ Xadim Jeng ca Ndakaaru yal na yàlla yokk wërsëgam yal na yàlla yokk xéwal amiin amiin sëriñ Basiru Seck ca France hmm. yal na yàlla yokk wërsëgam yal na yàlla ko xéwal amiin soxna su gaawaan Seck hmm. magam ca Italie hmm. yal na yàlla yokk wërsëgam jàpp na ci sëriñ Bada Seck ak mboolem taalibe yi ci jàpp yëpp yal na yàlla yokk seen tawféex maanaam benn yi nag ne ñëw na fi. waaw waaw ceebu ganaar waaw ceebu jën waaw ceebu koppi la. ceebu ndawala lépp ñëw na. te lépp jox nañ ko mbokk taalibe yi ñoo ko wér. ngi ñaan ci barke Soxna Sugaawaan. waaw waaw sax yal na fi yàgg te wér. amiin amiin liggéey bi sëñ Tuubaa bi yal na ci am ndam. amiin amiin amiin yow it nag kenn mën laa fay. xaw ci yoonu murit <laughs> nga yaatal ba dong yëpp jot ci. macha allah ma yàlla yaatal. amiin amiin amiin waaye waaye waaye waaye sëñ Baara. dafa am appel boo xam ne maa koy def. sëñ Baara mi li mu fi wax lépp. Mhm. li may digle mooy ko mata joxe ngi ni ndax lu ko nit jox indi nako fi fi neex na lol ndax teraange ñu fi indi day sax wax lu nañuy indi ay mbana mu joge ci ëllu ma maam joge ci am amsatu si ibra gay jabal ko ay nit ñi yeen ko indi ko fi di ko séddale te loolu dara taxul lu dul bëgg soxna ay sot gaan ak bëgg bërëb bi kon nak suñu baara liñ lay jox yépp ñun sér nañ ñi yegg na ñaala suñu bam gën defal tawfiq kon bok ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni wa sëñ Fallou ñu ngi leen di jaajeufal ci ci ci ci sédélé bi alaaji yi ñu ngi di jëf jëf ñu ngi leen di jaajëfal ndax lu xew fii ngeen bàyyi seen yitte yëpp jàngu leen alxuraan jàngu leen xasida maanaam defu leen dara lu toppatoo ñuy jàng rek ak ñi jàng xasida kon yéen ken ëpp leen li muy jàng alxuraan kenn ëpp leen li muy jàng xas la ndongal Touba liñ fi def ci café mu naan ko waaye nag loolu liggéey bu rëy la <laughs> waaw incha kon ñu ngi sant bu baax jëwrin ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp abib abib abib waaw abib damaa bëgg sant sama soxna si soxna Aïssatou Gane Touré e bul dem sul la Aïssatou Gane sul la bul dem ndax biñ fi jógee bee passé seedaa nga ñu fi indi gis nañ ko yow ku bëgg soxna si gaan nga loolu man maa koy wax sama bopp te yéen xam ngeen ni man dara ay caaxaan aw ma ko yaa ngi indi suukar yaa ngi indi café yaa ngi indi ndox yaa ngi indi boisson te nag naan na ko nit ñi naan ndox mu sedd mi ubbi leen naan leen waaw loolu gis nga joxe neex na mais joxe la manière de donner ele est beaucoup plus importante daa dégg mooy français nag waaye ma cabaxal boobu kon soxna su gaan waaye nag lépp mbir bi yëpp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dellu si ci sunu jëwrin kii moom bu waxee Seydina Habibullahi lépp moom la àdduna bi ñu ngi leen di kalaameeg soxna su ngeen ñaar ñaan suñu jëriñ ji sëriñ Abibu Mbay lépp moom la bu xataloon li sëñ saa doon xam du ma fekkul yàlla eh, yaatal ma xatal ko moom loolu lay dund sëñ Moustapha yéen yéen a gën a xam ni ànd ak ngeen ànd ak sëñ Abib suñu yokkute la waaw kon nag sëñ Abib ginnaaw madam l'ambassadrice waaw kon kon kon nga waxal ko ah kon kon boog mat na alhamdulilah waaw ñoo waaw ah sama jooy ni seen géej njaay sëñ géej yéen da ngeen am bis bu rëy bee passé ajuma bii dañ leen doon sargal waa axlu maay bu ñëpp gis ko ci télé bi ñëpp kontaan nañ ci yéen kon nag waa axlu maay bu teg leen seen loxo yéen maag yéen dinañ jël sa incha